ki leen teewal gis nga sinaalun ci xam-xam bi waaye ci pédagogie bi waaye gis nga sëñ Pape Ñaan moom itam ci xam-xam beeg pédagogie bi xaj moor incha allahu taala daa ñëw ci yow léegi euh, mais euh, wala ma ñëw ci euh, ma ñëw ci ma ñëw ci alxaji Pape ñu tëjee ci alxaji Mor sëñ Pape léegi nag waxtu waa ngi dem fi doon ni ñu ngi wax ni mais temps temps baa ngi dem léegi li ma bëggoon a xam ñu dugg rek ginnaaw Cheikh islaam taxawaayu si naa dem jërëjëf oustaz Pape euh, oustaz Ali Ndaw mi doon wax léegi euh, dafa ñëw ci Thierno ñëwin boo xam ne euh, am na solo foofu nag lay tibbee pour wax la Thierno ci gannaaw Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu Thierno moom oustaz doon melal léegi ca xam-xam ba. ca jaamu yàlla ga ci rafet ak kàndoo ak Mawlana Cheikh Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu ci xidma ñëpp xam nañ ne adduwaaw silaahul mumin te ñëpp xam nañ ne mbir yi mag ñii ci ñaan yàlla rek lañ ko sampe ci ñaan yàlla rek lañ ko sampee Cerno Asan bi muy ñëw ci Baay oustaz wax na leen léegi na goreel na mboolem fànn xam-xam waaye ci jamono yooyu muy jàng moom ci la miin tudd yàlla ci la miin xalwa bim ñëwee ba gis kiim doon wër ci àdduna ngir lim soxla woon muy xam yàlla mhm. ba jaar bàyyi fi mu war a jaar ak bàyyi ba pare mhm. dafa jógoon pour dellu bàyyi da ko yeewoon pour muy dellu pour mu dellu Fuuta mag ci mag ñi mag ci mag ñi. waaw xam ne jamono bi fi Thierno nekkee moom doon na jonjoo ak moom. waaw. moo ñëw ne bàyyi ana suñ gan gi mu ne ko dem na mu ne ko ah ko warut dem. mu ni bàyyi kooku warul dem. mu ne kooku dem. bàyyi na ko ah mu ne waaw mu ne ko lu tax mu ne ko ngir lii ak lee bàyyi na ko ah mu ne ko waaw. waaye na demul de ndekete booba. Mhm. boobu demul. déedéet bi mu fi jógee dem na waaye dafa jaar Bambey bi mu jaaree Bambey mu dugg fa xalwa bi mu génnee jàll dakaar bi mu jàllee dakaar mu dégg ñu ne Baye ñëw na Dakar mu ne fekk booba xolam mi ngi xotteeku xaat ci namm na mu baay allahu akbar <laughs> est-ce ñu ne ko fan ñu ne fan la Baye nekk ñu ne ko mi ngi kër El Hadj Omar mu fekk fa Baye ko Baye gisee ne ko ah Thierno. ah yow jeex nga de mu ne ko waa dama doon dugg xalwa mu ne ko ah mu ne nit ñi génn leen ñu may leen ñoom ñaar ñu toog ñu waxtaan lañ fa waxtaanee bàyyi na ko maa la yeewoon yeweetuma la nañ dellu ci la ñëw fii toog. maa la yeewi woon yeweetuma la. déedéet mu ñëw fii toog ci ban toogaay ci toogaay téye kursi Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu moom ci wàccuwaay boobu ci la ko bàyyi wàcce mu toog yore néegam xalwa bi nga xam ne kon Thierno depuis boobu ba ni bàyyi di génnee jóge fii di dem moom ci course rek la nekk moo toogal bàyyi ci dar bi nekk wël yu kaamil nekk wël yu kaamil da ngay ñuy wax ne bàyyi lim doon tukki ci jamonoom dafa bëri ba am na sax ay quelques politiciens wala yenn sëriñ si yenn ñu ko daan wax ne li muy sëriñ boo xam ne dafay tukki rek. waaw waaye sëriñ la boo xam ne tey toll na ci wilaya foo xam ne PB ko wax ne ko génneel ci jëmmi yàlla ji képp ku la gis texe. wallahi ndax am na ñoo xam ne ku leen gis texe. dafa yor benn mission mission bi lan mooy fayda bii nga xam ne Cheikh Tidiane junjoon na ko. wala ko tasaare ci àddina bi ba nga xam ne dana daj mboolem gox yi. tasaaroo léegi nag kooku nag il faut que mu am ku ko toogal fii comme ni nga xamee ne Cheikh Tidiane ba mu jàllee ca maqaamam bu ñëpp réere dafa indi Cheikh Seydi Aliou Harazim teg ko ne ko maa xalaftu si waaw teg ko ci maqaama bi bàyyi dem bàyyi Thierno Assane dem bàyyi jël Thierno dem teg ci der bi mu toog foofu noonu war a jàkkaarloog pay bi naan allahuma taxaw maqaamaam Seydi Arabi Damraawi ca ca yonentu ba taxoon ñu wasita taxaw foofu di jëlee ci pay yàlla bi di indi ay résultats Cheikh Ibrahim Niass di jëlee ci Cheikh Ibrahim Niass loo ay tawati pays bi ay soxlaay jaamu yàlla yi di ko yóbbu ci pays yàlla bi di indi ay résultats. te wilaaya gaag jaamu yàlla gaag. taalibe Baay la waaye tamit nag tamit Seydi Ali Harazim mi ma tudd léegi tamit. moo am mhm. maqaamam bay timit wa maa xalaqtu siwaahu bañ ko waxoon. waaw tamit ñaar yëpp dafa ñëw daje ci Cerno Asan Dem radiyallaahu léegi nag mu nekk ci xalwa mu ne juróom ñaari fan yi ñeen fukki fan yi léeg-léeg mu jël ñeen fukki fan toftale ko fukki fan. Hmm. suñu suñu sëriñ. na Thierno Mamadou Wagne mi nga xam ne moo doon bëkk-néegam di doomam dégg nga di jarbaatam. Mhm. dégg nga mi nga xam ne moo daan yóbbu lekk yi nee na ci njëlbeeni xaloo yi day dem di yóbbu lekk muy gis ne Thierno mi nga mos ndànk-ndànk mu dem ba xam ne toog na lu ëpp ñeent fukki fan yoo xam ne lim yóbboo boolu lekk bi noonu la koy dellusee kooku lekkutut ci xaloo loo la daan nekk ba der bi mu toog di tàkk léeg-léeg bàyyi ci néegam bii lay toog ne cer Assane deram baa ngay tàkk. ci xalwa yooyu xalwa ci la doon nekk ba bu génnee doo ko ñemee parce que yaram yëpp dafay sax karaw comme gaynde ah wallahi tallaay allahu ci xalwa yooyu ci la doon nekk ba ne bàyyi fii lañu ñu war a tabax école arabe bi fii gis naa ay naar ñi ngi ñëw di fi jàng la ñu toog ay at door a gis loolu ci xalwa yi la doon nekk di digal bàyyi na ko da am sët buy judd nangam lay doon nangam lay doon nangam lay doon ci xalwa yooyu ci doon dugg waan noonu ba nga xam ne mag ñuy sonal ca Nigéria bi sonal taalibe ci nangam nangam ak nangam dana ko dal waaye ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daw na diggante Baye ak eh, Thierno Assane Deme ci ay lettre yoo xam ne moom ci Thierno ci boppam na waxoon na ne bu ma ragalee sama bopp danaa jël kayit yooyu ma gas ko suloon ma lakk ko ndax bëgguma beneen bët tege ci kooku borom kóllëre la. barakallah waaye doomam yii mu bàyyi fii tamit borom kóllëre la ñu ngi taxaw ci ay lettre yoo xam ne sensible na sensible goo xam ne duñ ko mas a génn ci àdduna. na noonu la nekkoon ak Baye kon ba bàyyi na ko seetal ma yoonu London wi mooy yoon wi fi Baye jógee te dellusiwut Cerno gis ko ne ko gis naa diggante asamaan ak suuf gis ma fi dara lu leer lépp dafa ñuul Baye xam na lu xew mu ne ko am nangam a ngi nii demal nga jënd mu jënd benn xar ñëw pour saraxe ko bi mu ko saraxee ba weccet bi mu jox ko ko bàyyi na ko jëlal mu ne ko déedéet mu ne ko ndigal la jëlal mu ne keroog la ma bàyyi ma sa jox loxo jox xaalis ma ma ma ma nangu ko. allahu liggéey bi mu doon liggéeyal Baye ci xalwa yi ci course gi képp ku ko masoon a defal nit ci àddina. ku sëriñ xataa bàyyi am nañu ko doon defal daf leen doon jox xaalis waaye moom ca tàmbaleem ba mu ñëwee bu ko bàyyi bu jox daf ne ko déedéet man barke rek laa bëgg nga ñaanal ma jot samay sàkkuteef nga ñaanal ma jot samay sàkkuteef kon nag bàyyi dem na London yàlla def na lu ko soob yàlla bàyyi wuy juna boromam Thierno Assane dem des fi pour war a jouer rôle mission ba ko bàyyi waxoon na ko xusaasil fayda waaye fayda bii kenn du ko téye donn ci bàyyi ñes radiyallaahu anhu te donnoo ko ci mboolem maraati bi doon la kon bàyyi si mboolem maraati bi ci xam-xam bi na Oustaz doon wax léegi ci wilaya ga ci lépp. dégg nga. Mhm. moo tax ba loolu amee tamit. Mhm. Thierno Assane radiyallahu anhu dugg na nag génn na nag comme na bàyyi génne woon bañ ko waxee na koy axruj fii suurati man raaka daxalal janna génn na nag topp nag pays yi nga xam ne mën nañ leen a tuddee dawla ci Ibrahima ya nga xam ne fu ci nekk bàyyi toj na ko jël doomi réew moom def leen ay aarifiina billaay ay jaami yàlla dëgg-dëgg. dégg nga mu jéggu ci réew yooyu noonu saafuwanteeg muqaddam ya fa nekk dégg nga zaawe yooyu mu toj ko ci ay majalis al ilm ci mboolem sama benn euh, mbokk taalibe bu baax bu ñu wax oustaz Alaaji Cissé dafay wax ne na mooy saahibu majlis majalis a ilm asalaasa. macha allah dégg nga xam-xam. Mm-hmm. ci charia waaye xam-xam ci tariqa xam-xam ci xaqiqa. dégg nag dugg na ci réew yooyu noonu zaawe par zaawe dëkk par dëkk ay milliers et des milliers de kilomètres mu du ko mu ko dugg ci avion. dégg nga di ci du ko du ko dugg ci ay oto dégg nga di traverser ay frontières comme ni nga ko xamee suñu réew yi nii réew yi Afrique de l'Ouest wala ba ci Afrique ngir di gën a bëbbal fayda ci Afrique centrale pour jël mission bi nga xam ne moom la ko bàyyi waxoon na ko xuz hazil fayda barakallah waaw dégg nga waaw daaneel dugg na ci dëkk yooyu noonu dugal fa ay junney junney nit ci diine ji dugal ay junney junney nit ci tarixa bi def fa ay muqaddam ay junney junney junney nit dégg nga duga génne ci def ci ay majalis yoo xam ne majalis bu ci nekk rek bu ko ñoom oustaz ñi teewoon génne ci ay mujalladaat ci àll bi. macha allah kooku mooy Thierno Assane Deme radiyallahu am nañu mbégte jërëjëf ak télévision